Amen. bokk réew senegal ni nu ko baaxoo ci xew-xewu diine yépp tey ñu fas yéene indil leen màggaluk sëriñ Modou Bara Mbacke ibnu sëriñ Bara Mbacke ibnu Cheikhul Khadim njaboot gi ci njiital sëriñ Khadim du Bara àndoon ci ak mboolem njabootuk sëriñ Bara Mbacke Khadim Rasoul gi yépp ñu amaloon ko nag juróom fan ci weeru kori wi ci ndigalu xalif général des mourides Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke yal na fi yag lol te and ak wer serigne Modou Bara di premier khalifa serigne Bara mbake ibn Cheikhul khadim waye it mooy sët bi njëkk ci seutu serigne Touba yi nekkon ju matale ni ko témoignage yi loko lu ko jitu nag ziyaara nañu njabotuk serigne Modou Bara gi yépp بك ci turu sëriñ bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général de Mouride te ji jël ci ñooy bi sëriñ Modou Bara mi nga xam ni suñu doom la di taw sëriñ Xaadim Modou Bara e, di bis boo xam ni bis bu am solo bu rëy la ndax ñaari góor yàlla lañ ci fàttaliku bu njëkk bi mooy sëriñ moodu Bara mi nga xam ni moo jëkk nekk sëtu sëriñ Touba moom la sëriñ Touba njëkk ci gis ci ab sët te muy tawu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak sëriñ Xaadim Modou Bara bi nga xam ni moom la sëriñ Bara jëkk am ci ab muy ñaar ñoo xam ni kenn ku ci nekk jamono ji la suñu borom tombee looloon euh, marqué nga ko ci ni ci waroon a taxawee bu jëkk gi muy sëñ Modou Bara bi fi sëriñ Bara di bàyyi ko mën naa ni ñi ci ëppoon ci ak yi ci at yu néew lañ toll woon waaye kenn ku nekk ci ñoom. mu taxawu la ni ki sëñ Bara bu fi nekkoon ni muy tax ni mu leen di taxawoo noonu leen sëñ Modou Bara taxawoo ba ñëpp jàng ba samp ay kër ba nekk ay mag jigéen yi itam kenn ku nekk mu saytu la aar la ba sàmm la ba am comme la booleel nga fay jaamu suñu borom muy liggéey boo xam liggéey bu rëy la boo xam sëñ Modou Bara def na ko aaroon njaboot gi lool itam nekkoon wàll yu kaamil góor yàlla gu mag borom baatin ku amoon fulla am fayda ñeme lool nga xam ni lépp lu mu war a taxawee taxawee na ko moom sëñ Modou Bara sëriñ Xaadim mi nga xam ni itam ñu ngi koy fàttaliku ci bis bi nekkoon suñu mag moom lay wax sëñ Modou Bara léegi mii ni ko tuubaa léegi la neex waaye ay années soixante dix soixante quinze booba ñi fi am ay kër sax bariwul ñi fi nekk bariwul waaye ñun ñi fi nekkoon ay rakam ñëpp doon fi jàng daf ñu uufoon ñun ñëpp ci këram lañ doon sosi mu ñu jox ndékki di ñu jox añ di ñu jox reer uuf ñëpp wàcce boppam. ba maase ak ñëpp nekkoon murit saadix koo xam ni koo xam ni ak taalibe moo ko gëraloon lépp nekk ku gëm sëñ Touba ku gëm maamam Cheikh Mahoulin Baara ku ko daan dundal itam kooku nag su bisam ñëwee ñu sant ci yàlla sant sëñ Modou Baara mi nga xam ni itam mooy taawam te yoon wi nga xam ne ci la waajuram awoon mu aw ci moom ñu koy sant di ko ñaanal yàlla dëgëral ko dëgëral ay rakkam ndax yoon wi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci yoon woowu la aw kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm su suñu gisee ak suñu gisul yëpp ñu ngi koy ñaanal di rafetlu doxin wi nga xam ni mi ngi koy dox di sant taalibe yi nga xam ni itam dañoo nekk ci wetam di ànd ak moom ci liggéey bi te xam ne ab sëriñ moom amul dara lépp lu mu am rek taalibe yi la kon taalibe yi seen jëf rafet na seen taxawaay rafet na ñu si leen bu baax a baax gërëm leen ci loolu te ñu gën a ñaan rek sëriñ bi sëñ Cheikh Sidi Makhtar mu yàgg fi te wér su fi yàggee waxuma sax yoonu murit waaye sago lislaam la kiiraayu lislaam la maanaam kiiraayu Sénégal la ndax koo xam ni am itteewul dara ci àddina fàggalul dara boppam lépp lu muy def lislaam la ak sëriñ bi rek ko ñu ñaanal ko suñu borom guddal fanam te yokk ni ñi ngi sant bu baax ak jërëjëf ñi ngi sant itam waa télé yeeg rajo yi fi jaww yëpp nga xam ne ngi jël si yëf yi saa su nekk di sonn dégg nañ leen ñoom itam bi maa ngi jub see taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ci ñu sant leen ci bu baax a baax sant mboolem mbokk yi nga xam ñëw nañ ci bis bi jërëjëf Mbacke sëriñ bu suggu ngir mu wax ci turam ak ci turu mboolem njabootuk sëriñ Sidi Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi. asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yëpp yéen mbokki taalibe yëpp yéen mbokki Sénégal yëpp yéen mbokki bitim réew ñu ngi leen di nuyu ci bis bu màgg bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci guy mbind ci kër sëriñ xaadim Modou Baara moom sëñ Modou Baara moom sëriñ Baara moom sëñ Touba yàlla nag ñu teew ci jotaay boo xam ne xalif général de Mouride sëñ Mbacke Mbacke xalif général des mourides sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo di ab taawam teewal ko fii ci jataay bi sëriñ Moustapha nag joxe ndigal ngir ñu wax ak yéen ay kàddu yoo xam ni day leeral lu bokk ci bis bi ak lu bokk ci jataay bi xam naa kon jataay bi lañuy ñuy a leeral euh, moom mi nga xam ne mooy sëriñ Moustapha di taawu sëriñ Sidi Muxtaar sëriñ Cheikh Matilay mi ngi feggoo ak sëriñ Cheikh Kajoor mi nga xam ne moom mooy doomi sëñ Amar Fall Mbacke mu Mbacke Kajoor waaye mi ngi dend ak Serigne Cheikh Baara Karim mi nga xam ne mooy imaamu ratib bi guy mbind muy doomu sëñ Abdou moom Serigne Baara euh, mi ngi dend ak Serigne Modou Baara mi nga xam ne moom moo woote bis bi euh, Modou sëñ Modou Baara moom sëñ Xaadi Modou Baara nu nekk ci saalam nekk ci këram mu ngi dend ak Serigne Cheikh Thioro moom Serigne Amal Fall moom Serigne Baara ak ñu ngi dend ak Serigne Baara Mbacke. moom sëriñ Cheikh bu di kenn ci sëriñ Xaadim Moodu Baara mi nga xam ne moo waral jataay bi eh, njabootu sëriñ ñaan Diop gépp it ñi ngi fi toog ci jataay bi eh, ci ndigalal sëriñ Moustapha bëgg na sax ñu tudd tur yëpp waaye du yomb waaye njabootu sëriñ ñaan daal ñi ngi fi eh, bis bi nag di bis boo xam ne ñun bu nu ci sëñ bi joxe ndigal dana nu ci sawar ndax ki nga xam ne mooy sëriñ Xaadim Moodu Baara di magam moom mii doonoon xaritam doonoon léppam te ñu seqoon ko euh, ba yàlla àtte tey jii moom mi bàyyam di xalifa général des mourides yebal si ko mu dikk teew fii tamat ko sëkk moom mat wutuwaayu sëriñ bi ci loolu euh, sëriñ xaadim dafa defoon nit koo xam ne ab murit saadix la woon sëriñ xaadim defoon nit koo xam ne ku bëggoon l'islam la waaye sëriñ xaadim defoon koo xam ne itam ku bëggoon ak murit la ku murite la woon euh, benn baat bu nu wax ci yooyu itam mën nañ koo tekki kon na mbokk lool fonk mbokk ga itam mën nañ caa wax lu bare bari ndax man de am na benn bis rek man ak moom sëñ xaadim nu dugg ci néegam bii ci biir mu yëkkati ab oto caabi ya ak kayit ya jox ma ni ma bëgg nga damaa bëgg nga joxal ma ko sëriñ Moodu Baara moom sëriñ Abdul Hasis oto bii nga yónneel ma ko ko nu nekk ci biir waaye mu ne man am naa lu ma jaaxal ma mu ne ma aw ma gasoil bu ma ci def ma ne ko ah waaye loolu de yàlla am na gasoil nu dugg waxtaanee ko ci biir ma ne kon bu nu génn rek danaa fexe oto bi demee nu génn dugg ca saal be bi ñu dikkee noo ngi fekk Moodu Baara moom sëriñ Abdoul Aziz Baara toog ma ne ko ah, sëñ bi de mbir mi doon kiimaan mu naa ah, ma ne ko sa mag ju baax ji daf ma doon yónni ci yow nga far agsi daal koy wax mbir ma nam demee sëñ Moodu Baara daan ne jataay biir képp ku fi toog tey yàlla ak sëñ baar faj na sa ajo ma di indi ab junni jox sëñ xaarim ni ko kon nag gasoil bi nga doon wax defal ko ko keroog euh, sëñ xaw ma Abdou Diop la xaw ma mi doon sëñ Abdou moo ko yóbbul ba loolu dama ko fekke sëñ bi kon bëgg mbokk googu loolu murite gi danaa ci wax euh, lislaame gi danaa ci wax ndax fii nu toog ci néeg bi néeg bi mu jàkkaar lool dafa wutoon ab lal bu rafet dem ba bëggoon koo tëdde mu ne lal bi jaaduwul ma tëdd ci mu fab lal boobu teg ko ci néeg bee fa jàkka ja teg ci ay téere ne téere yii Sëriñ Tuubaa daan teg ci lal di ko wër di ko woy looloo ma war kon itam lislaame gi noonu la fonke woon lislaam bokk gi rakkam yi mu bokkal sëñ baara yëpp kenn ku nekk dalaa taf ci boppam ak doomi yoon wi yëpp ak jullit yëpp kenn ku ne mu taf la ci boppam maanaam di def ci yow ay njekk ak i taraanga ba mboolem gone gu fi nekk fii ci guy mbind maanaam dem nga ba sëñ Moodu sëñ Xaadim Moodu Baara gënal la kulul moom ngir safoo gum leen safoo faale gum leen faale ànd gu mu àndoon ak ñoom alxamis ji nga xam ne daf daan def alxamis ju ne mu di ko fi woote di ci wàccee kaamil di ci jàngi xasaayit di ko maanaam jagleel benn kilifa ndab yooyu ak teraanga yooyu def na ko ba yóbbu ko fi yit ko sëriñ Abdoul Aziz si ca Tiwaawan te defal na ko kilifa diine yu bare bare bare bare kon bu yàlla àttee mu dem bàyyil nu fi doomam ji nga xam ne sunu dooma waaye sunu xarita waaye sunu lépp e, mu woote bis bi kilifa yi dikk wuy si ko loolu moo waral sëñ bi ne moon rek ma sànni si yooyu kàddu ci lu mu néew bu ko defee nag jataay bi dafay xat dafay yaatu te ñeneen am na yeneen yuñ ci war a wax man ak sëñ Xaadim li samay wax ci moom du am fu muy yem damaa xam ci moom lu bari ndax tudde na ma doom joo xam ne moo doom ji ñoo maase mu jox ma ko ma ca daal ma nga ci sama kër bi mu feree sëñ Muudu mii moo ma ko jox sëñ Cheikh Mat lay moo ma ne feral ko ma feral ko ndax jigéen ñi di muuru bi ma ko feralee bi mu matee dal sëñ sëñ Muudu mi jox ma ko waaye yéeg na ma ngi moom fii ci taaxum kawam mii mu tiim kër sëñ Abdou Khadim gii bi mu ko tiimee mu taxaw tam yaa mu ne sëñ Bamba nan wàcc nu wàcc mu ne ma mënatumaa yéeg ci kaw ndax dend ak sëñ Abdou Khadim ma tabax am taaxum kaw ba man cee yéeg këram mel nii nañ wàcc biir yi damay dem tàgg ko defaral ko batiment boobu bii keroog nu jóge fii dem ci sëñ Abdou Khadim dafa dikk wàcce lu bii tàmbali kër gi ci kër sëñ Abdou Khadim kon noonu la fonke moom ak taal bi noonu la fonke lislaam noonu la fonke bokk gi jëmm ji mu fi bàyyi nag euh, sëriñ bi noo ngi lay waxaat ni la sa doom jii na nga ko ñaanal yaag baayam yi fi nekk yëpp ndax amut lu dul yéen bëggut lu bi ko nee tam loolu ñuy def dafa maa woo ba ma ñëw mu ne ma santal ma njaboot gi te gërëmal ma leen ndax ku tukki nekk ci àll ba sa njaboot ne fi màggal gi mel nii ñu defar lépp ba bi nga dikkee nga fekk fi lépp mu ne sant na rakkam yii bu baax sant na taalibeem yii bu baax sant na baayam yii bu baax ndax baayam yene guy mbind bi mu tukkee kenn ku nekk ñëw fi ginnaawam di toppatoo ak a ko rakkam yii kenn ku nekk jóg nga sol saw daal di def la nga war a def ba ni mu mel ngeen gis mu mel ni taalibeem yii noonu mu ne kon nag nit amul lul ay sëriñam sant na sëriñam te sëñ Sidi Muxtaar jiitu ci nit amul lul sëriñam sant na ay bokkam mbokk yi yéen ñi di baayam yéen ñi di magam ndegam am na ko fi ñooñu mu ngi leen sant ni mu sante taalibe yi noonu la sante bokk yi te noonu la sante jigéen ñi ci kër gi nga xam ne ñeen ay ndayam la ñu te teewul ñu fi def benn daayira boo xam ne bi mboolem ko sëñ xaari muut baara yoroon jébbal ko ko teg ko ci loxoom njaboot gi taalibe yi sëñ seex ñaan gone yi mu àndal yëpp dañoo taxawu kër gi laata muy ñëw loolee nag ci la leen sant yéen ñëpp ci la leen gërëm yéen ñëpp kon mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp sëriñ bii di sëriñ Moustapha te waxloo woon ma li may wax it ma wax ay waxam saraal ko ci li ma fi xam noo ngi ko ciy jégalu ndax nit bu la waxloo fa mu la waxloo rek fa nga war a yem waaye li nu wax lépp ay waxama ak ma ak leer la muy tam kon euh, ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci baatu sëriñ bi ak turu sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëriñ Cheikh euh, Bara. mu Serigne Abdou Karim moom mooy imaamu guy mbind euh, ñu ngi seq jotaay bi ni ko sëñ su Sougou waxee ak Serigne Cheikh Kajoor kon duñu def lu dul jébbal ko kàddu gi moom ah Eliman Ratib bu Mbàkke Kajoor moom it ñu jox ko kàddu gi rek euh, mu am ay kan yu seede euh, yu mu indi ci bés bi. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi xanaa lañ ci sànni doon bari ni ko sëñ Bamba waxee rek luñ soo ko amu ci li wax lépp ku xamul sëñ Xaadim mën nga seere loolu ak jullit la as la ab taalibe la ku bëgg mbokk la fonk na ay kilifaam fonk njaboot nga xam ne moo leen seen kilifa te ñu bokk sëriñ Baara nga xam këram gi bu masaan nekk daanaka ku nekk suñu baara te nekk fii ci penc mi daanaka eh, fi ngay nekk ba guddi jot te ñu bari ñoo ay doom ñoo waaye nag fonk gu leen fonk ak yërëm gu yërëm ba taxoon ñëpp ñeme ko muy ko baax daal itam suñu xaarim bu ak lekk teewee bu gisu kenn jaanu ko ma lekk day dugg kër yi wër ba gis ñu ñu ngi kon bokkaloon nag jëf ni ku baax la jëf jullit la ba tax na fee mu tëdd ñu ko ñaan su borom subhanahu wa taala mu la mu yaakaaroon ci sëriñ bi suñu borom defal ko lu kaw njort njaboot gi fi bàyyi suñu teg ci loxo fu mu féete woon suñu borom féete leen fi am nañu baax ni ko sëñ Bamba waxee sëñ Modou mi ngi dund loolu ñi nga xam ne léegi tey ay bàyyi lañ ci moom xeebu ci kenn kum ci maasal kum ci maasal ci yam ñëpp jox nañ ci kilifa ngir wajuram woowee ba tax na ñu ko sant ci loolu ndax yoon mur moom rek la dox ab yar ak taalib ku képp koo xam ne amon amoon nga shahid allah képp koo xam ne daal amoon nga wajuram su mur fex na ba am na loolu nag loolu mooy ni ko yonte bi sama sama ndax yonte bi maru sama sama sëñ boo ci loolu kon moom te ñu ko ñaan borom taxaw ko ak ay rakam yi bokk suñu xarit yëpp mboolem jib yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah moom it ñëw bokk ak euh, njaboot gi bés bi sëñ bi ñu bëggoon euh, ay kàddu rek euh, jëm ci bés bi ak ki nga xam ne nii moom la ñu ko jagleel aouzu billahi min asheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi xadimi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu fi seew ñu leen nuyu di saara di leen balaq ci bis bi daje fii bis bu màgg di ñu jagale ko ko màgg suñu si moo si moo baara Mbakke mun xëy suñu baara Mbakke ñu boole ko doom ju baax di ko ko woon taxawal suñu Xaadim Mbakke mu suñu baara ci ñu teew fi tey daa ko ànd ak Xaadim wax dëgg alhamdulilah diir bu yàgg. waaw nii nii bokk yëpp daa teew góor ak jigéen mag dañu yàgg te seere kaa defee te seere kaa defee mujj gi koy def ngir waaye far ko ngir ñi ñëw gi deen yomb waaye tey si la kaa defee loolu ba tey moo tax moom seen mud bi fi nekk waaye loolu rek ngir dimbali ko bokk waaye son tey seet ñëpp ñëpp ñëw muy bis boo xam ne bii rek rëy la ndax seen mud baare mi tax ñu koy def wala taaw sëti siñ tuwaay yi moo ci magoon liggéey liggéey bu rëy yàggu fi waaye bàyyi na fi liggéey bu yaatu sëñ Xaadim ab taawam it nekk fi wéyal lool ànd ak bàyyam sëñ Abdou Siis ak bëgg njaboot gépp topp leen tërbiyewu leen ba am seen ngërëm ba bàyyi te bàyyi fi doom doom si sëñ Moodu Bara mi mu wéyal kon ba ñuy sant yàlla si xamal boo xam ne daal benn bis ëpp ko si yoon yoon wari ndax ki ko taxal moo doon taawu sëñ Tuubaa ci sët yi moo woon ñëpp ci gàttal kon boog suñu tey def ñaan ñëpp ñaan yàgg ko taxawee te ñaan suñu borom ci barke ki defal mu nangul leen si si si suñu liggéey te ngeen xam ne nag bis moom bu ne na borom tolleen teen ak sor rek ndax ni ni mu mel si ci xéwal yi lépp noonu mel ba ki ko liggéeyee moom moo mel noonu mbokk yi fi tey yëpp gis nañ leen ñu ngi sant baax ndax lii moom ak barke ji rek la ku taxaw ku bis mu taxaw ñu taxaw waaye yit yëpp def ko suñu bis nañ ko yàgg am nañ ko gën a jëm te gën a fokk rek ndax dox bokk bokk gëma léegi si màggee lañ ko ma taxaw rek parce que amul su jot léegi waaye nag bis bu ne bokki bàyyi seen dikk teewal kooka ànd ak moom si bis ba su ko defee rek lépp lépp day gën day gën a yees seen mudu baal mi fi nekk nag di sëtub seen mudu baal ñu ko ñaanal mu yàgg fi nga fay taxaw mu yàgg taxaw maam ju baax seen mudu baal mi ko tuddee yàgg waaye bàyyi baax si Xaadim Mbàkke si Xaadim moom dina kenn koo xam ne kii nag day mbiram neexut a waxee ndax daf baax gu mat ma sëkk doon ab taalibe doon murid saadix doon mbokk mu baax fu ma nekk fekk naa fa fu ma nekk rek fekk naa fa fekk rek sant laa yoon la ñu fa guddi fu ma sant fekk naa fa kon boog moo tax biir moom bis moom lu mu xar-xar daa daa ci incha te ñaan suñu borom rek ñu yàgg fee taxaw te lépp lu fi ñaan si borom si yàlla saa jot si ñaane ci te sëñ Mourou lépp lu ay maam ak bàyyam doon taxaw mu taxaw lu gëbb bokk fi teew sant ñëpp yàlla saar yàlla fay na ngeen di bay ci dara Sëriñ Tuubaa allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amadou Ndiaye Nguirane mu gën ñu indil ay leeral ci diggante sëriñ bi ak alxuraanul karim ndax ku dugg ci néeg bi da nga xam ne bi teral na alxuraanul karim bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan noo ngi fii tey ci kër sëñ Xaadim Modou Bara ñu nekk ci biir barab boo xamante ni barab bi firina na muy daaray kamil bokku ci jumtukaay yi nga xamanteni ni mom la cheikhul khadim don liggéeyee ndax alquran ba wacce ci Mustafa sallallahu Alaihi Wasallam, ba ci cheikhul khadim la doora amé amee kër muy daaray kamil li nak firnde la ci xañti go xamanteni ni jëm ji dëkke won barab bi don xañ Sëñ Tuubaa ak ñor go xamanteni seigne bi ñor na ndax nit lañ cey tamu moy mu nefam fa niru la mu don ku ñëw ci barab bi doo laajte lan la xaayim jaamub yàlla la jullit la taalibeeb sëñ Tuuba bu yéene ñëpp jàmm loolu barab bi wane na ko ndax doomi soxna moom li ñuy xaar ci moom mooy jàng ak jàngale su ko nekkee nekk na da ca la ko war laneen lu mu wàlle da caa dugg waaye loolu du waru garam moom nag ci lool yi rek la nekk woon ba moo taxoon barab bii mu defar ko ci 1991 na taxawal barab bi am xememteef lool ci dundal ko waaye dajalewu fi téere yi nii rek mu tege fi nii rek ku ñëw xool téere yi mu bari nga yéem ko wëlbatiku daa am liggéey boo xamante ni ni mu la ci sartowoon di ko def muy daa tànnoon bisub alxamis boo xamante ne ni day dajale bokk yi yu bari ñu daje fi jàng alxuraan jàng xasiida mu tànn kenn ci njabootuk lislaam gi defal ko addiya moo xam ko fi nekk la moo xam ko fi newut la ndax ñaan li Sëñ waa wax ni dana jariñ ki ne ci biir bàmmeel di jariñ kiy dox ci kaw suuf ndax damay wax ni ku faatu moo ku labayam ki labut li man ci ku lab kuy dund mën na ko ci ku faatu moo taxoon mu liggéey biir boo xamante ni daf ko sartoo woon muy alxamis yoo xamante ni moom la wéyal ba bi muy génn àdduna suñ borom dogal na ci alxamis jooju yi la génn àdduna lii itam doon warugar woo xamante ni dañ ko war a sàmm ginnaaw sëñ Tuubaa nee na bi xidmatil kitaabi wal xadiis yasbutu laa bi sahabil mawruus mu ni ci alxuraan ak sunna ci lañ koy donn waaye deesu ko donn ci alal kon lii ndonoy sëñ Tuubaa la kon dana firndeel ni am na cër bu wér ci sëñ Tuubaa sëñ bi dellu waxaat ni kansil kitaabi wal xadiis wal adab sama trésor mooy alxuraan ak ak sunna lii itam fir firnde la ci kon ay taxaway la yo xamanteni ni yu am solo la yo xamanteni mat nay leeral mat nay wane itam ba barab yépp mu war fa mën ndax inspiration bi mom ci boobu wax na ni ma ben bis la ànd ak sëñ Mbàkke Mouhamed di wacc ci étage bobu ci keur Sidi Fall biñ tolloog neek sëñ Cheikh bi ci souf neena na sëñ Mbàkke ma ni ma jangi non muy neek Cheikh ne ma gestu seen kawlal ba am ay quelques téere yu ci tege ma ni mi ngi nuy nax dal japp xamni momitam amna am kon lanen lako war loola aw bind la woo xamante ne nii noonu lañ doon dundee mooy fu ñu gis lu baax danañ ko roy te sëñ Moussa baaxu nag ni fu lu baax ne ku baaxu ko fa yóbbu waaye bu fa saxee ab defarkat a fa ne moo tax bi sëñ xaadim demee gannaaw mi tam njaboot gi mu fi bàyyi taxaw nañ ci dundal barab bi dundal alxames jooy ak yéen jooju seen waajur amoon dañ ko gën a yaatal waaye delluwul gannaaw loola rek moom moom mooy barab bi te noonu la doon dundee dundin la moowee nag aw dundin la woo xamante ne dañ ko war a jàng di ca roy ci moom ci ak taalibe ndax ak taalibe la doon wax te damay wax ni ñaar rek moo fi jariñe ñaar muy jaamu yàlla ak tërbiya wu jaamu yàlla lañ ko seqal tërbiya Sëñ Tuubaa lañ ko seqal ndax ak taalibe la ñuy wut te ci moom la amee njariñ kaneen kuñ ci mën a tudd yoonam nekku ci taalibe moom Sëñ Tuubaa rek lañ ko seqal moom lañ ko seqal Sëñ Xaadim nag xamoon na loola ba tax képp comme mos a gis Sëñ Tuubaa la doon wut ci yow mo xam mu mag la mo xam nga mag ko mo xam nga don ab doxone mo xam nga bok ci askan waaye dana la joxu cieur ba yow ci sa bop da ngay rus manam deto deto ko ñemee bar na ñu ko ragaloon ñoo xam ne wi wayef gi motax ñu ragal ko waye du du dóore du gëdde du saga du xass nit du wax kenn lako ko waye day wacce bopam ci sa kanam ba mujj yow nga tit ni ba wàcc gi mu wàcc bopam du la wañi dara te fekk mom non la doon du lolu moy kàddu yi ci bëggono jot li rek wa rahmatullah gënaw témoignage yi lu jiitu bés bi nag sët yi ci njiital Serigne Karim amaloon fa ab conférence bu am solo bu nu jagleel Serigne Modou Moustapha Mbacke ibnu Cheikhul Khadim ngir woneeti rek diggante njabootug sëriñ Touba yi nanu nekke woon ak nanu daan dunde itam war na waxtu nekk ñuy daje di amal daje yu mel nii. di waxtaane loolu nekk ci suñu loxo muy diine lislaam naka lañuy def ba mu sàmm ba mu ñoŋ ba mel ni ko ki ñu dénk bëggee ba bu ëllëgee ñun ñëpp ñu mën a boole am ak mucc loolu nag dara mënu ko amal lu dul lu mel nii woote ay daje ñu bokk waxtaane ko ndax lislaam dara yoru ko lu dul digle ak tere ak fàttalikoonte rek te it buñ ci bu ñu ko dee tàmbalee ci fàttalikoo gi ci kenn ci gaay yàlla yi nga xam ne suñu borom ma leen tànn nga xam ni si ne loolu danañu mën a dimbali kattanal ñu ba seytaane du mën a am aw yoon ci jotaay bi ndax zikru salihina tanzilu rahma bu ñuy waa waxtaane ñu baax ñi yërmande suñu borom day wàcc te defe naa ni bu fi yërmande suñu borom day wàcc ak ki ñuy waxtaane ab dayoom dana jombanteeg seytaane di fi am aw yoon te itam li nga xam ni yàlla dénk na ko dénk nañu ko nun muy lislaam di nekk ci suñu loxo bu ñu ko dee sàmm ñun ak di ci wut ay pexe yoo xam ne seytaane ay yàq-yàqam dina wàññeeku dañoo war a am ay bunt yu ñuy jaar te mooy kii nga xam ne si ne ci la làqutoo ngir mucc ci lépp ci la ñuy jaare ngir am mbooleem lu ñu sàkk muy Cheikh Ahmadou Bamba kon itam na xam ni woote bii li ko waral génnul lislaam génnul waxtaane ñooñ lislaam génnul waxtaane gaa yi yàlla yi génnul waxtaane yan pexe lañuy am yan pexe la ñuy def ba lii nga xam ne mi ngi ci soñu loxo sàmm ba mën koo jébbal Serigne Touba ni mu ko doon xaare ci ñun nan la ñuy def ba seytaane génn ci liggéeyu yàlla bi génn ci liggéeyu yonante bi waaye itam génn ci liggéeyu Serigne Touba bi ndax itam ni seytaane di yàqe noonu itam la am ñeneen ñoo xam ne si ne ay niti seytaane lañ di yàqaat waaye itam fa leen yàlla xiir mooy ni nga xam ne noonu la yàlla baaxoo def yónent bu mu yónni dana am ñoo xam ne si ne ñu ngi ci ginnaawam wala ci kanamam du ñu d'accord ak mu mukk lu mu def ñu jëm ko mab bu fa jógee jaar ci awliya yi ba ci Cheikh Ahmadou Bamba kon du ñàkk mukk ñoo xam ne si ne ni ko yàlla def neexu leen ñoom itam ñuy taxawal ay pexe di def yoo xam ne si ne ngir mabbu wala xajamal li nga xam ne si ne moo di ab liggéeyam loola itam waxtu wu nekk ñu war di daje di xool wan yoon la ñuy jaar ba ñooñu seen i pexe du sotti lolu nak buñ ci dé wut solution ginnaw bi nga xamé ni tan nañ ay borom xam-xam yu wara wax ci lolu ba pare ndax wa khatilu ma ta la takuna fitnatan wa yakuna dinu lillahi biko suñu borom di wax du yam rek ci sahaba yi ndax ña doon xex l'islam jamono booba lañu doon def ak ñañu doon jakar lol ñi xex l'islam jamono bi wala ñi nga xamni seen ay noonu l'islam lañ ñoo leen ëpp doole ñoo leen gën a bari ñoo leen ëpp ay matukaay kon itam dañuy xam ni aaya moo mën a tuta wàcc ci ñun waaye bu doon continuer di wàcc dana wàccaat digal ñu ñu jëflante ak ñoom ni ñu war a jëflante ak ñoom ngir seen i pexe du joy segam ba nga xamee ni seen i pexe aggul fii la aaya wàccoon ci ñoom wax ñu jëflante ak ñoom ba diine ji mucc rawatina bi nga xamee ni seen mbooloo gën naa bari seeni pexe gën a bari seeni i jumtukaay gën a bari ñun itam war nañuy jàkkaarloo ak ñoom waxtu wu nekk ci di mabbal seen i pexe ci di fexe ba seeni pexe du joy loola nag nañ koy defee mooy xool fa ñuy jaar ndax ñoom itam ci xel la ñuy doxe ak ñun ci organiser la ñuy doxe ak ñun ak eh, ci diisoo ngir moo waral ñu woote loolu lañ ñu woon ginnaaw woote nañ ba nit ñëw teew dinañ wax li tax ñu woo leen ngir ñu bàyyi ko xel man koo teew lu ngir man koo jàpp jëfe ko itam